mbokk yi ni baye xel fu mëna nek ci aduna bi mo xam ñu nek ci réew wala ñu nek bitim réew tay baye xel seen seen bo am solo bi muy le grand secret a wolof di seen bo xam ne li ko taxaju ko moy mooy leen indil ay njëriñ yo xam ne man ngeen kaa jëriñoo kenn ci yeen ku ne ñoo ngi leen di assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu santete yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jaajeufal ko ndokkeel mbolé mbokk yi ni baye xel di len wax ne dikkati nañ ak yeen ci benen secret bo xamné secret bu len amal ñariñ la muy secret bo xamné secret noble la waye secret bolé la di ay bo xamné ne siiw na lol ci tagat doomu adama waye di ay bo xamné bu efficace la ci bolé ñaari nit moy bi leen fas yéene indil tay xanaa bala ñuy gëna sori rek dañuy fatali mbokk yi nga xamné ñoo mujjé fekkee ne abonné goo man nga abonné ta bu fekke am nga ay laaj timit man nga ka bind ci commentaire yi day sam vidéo yi bu dé amal na la njariñ ta nga partage ko sa xarit mbokk yi nga xamné ne dañu bëgg a def loolu listixaar dañu def listixaar à distance dañu def seet timit fo mëna nek ci aduna bi rek bu yité wo nga ku la defal à distance nga ñu contacter benn ci ñaari numéro yi 77 684 28 28 wala 77 668 28 28 incha allah rabbi des na la defal li si xaar bu leer naññe yow mi yittewoo ku la dimbale ci wàllu ñaan tamit boo ñu contacté incha allah des na la ci jàppale bu baax a baax a baax garab yi kàttan yi garab musaab disponible na jamono ji mbokk yi nga xam ne bëgg a ci groupe whatsapp bi tamit contacté ci même numéro bi waye ni ñu wax rek groupe whatsapp bi nag amna ay sart yu ci bokké kon képp ko xamné yitté yittewoo nga ko rek man nga ñu contacter ci numéro boobu wax la sart inshallah wa allah mbokk yi tay secret bi nga xamné mom la lay indi moy salikum hukmullah yahkum bainakum wallahu alimun hakim salikum hukmullah yahkum bainakum wallahu alimun hakim boo xoolee aay bi am na juróom benn niim ci nekk niim yëpp da nga koy yaatal comme nii nga ko gisee ci kayit bi nii rek bu ko defee nga jël seen ñaari tur yéen ñaar nga def ko ci bu fekkee ne ku góor mooy noblu ku jigéen nag bu mënee am turu ku jigéen ak turu yaayam mooy di gën mu bu defoon Moodu Njaay bëgg na Faatu Njaay danaan Faatu Njaay bu ko defee noonu nga fexe ba bind ci ñetti kayit benn kayit bi danga nga koy def téere ndigg nga takk ko benn kayit bi si des na nga jéem a fexe ba dem ci garab boo xam ne toujours maanaam am na car boo xam ne toujours nga takk fa téere bi nga xam téere bi toujours day yëngu téere bi nga xamante ni moo mujj nga jéem a fexe ba dem ci béréb boo xam ne. tooy la baaxoo mooy béréb boo xam ne fu mu day tooy nga gas ba mu xóot nga wut aw xeer nga teg ci jël déer teg ci wut beneen xeer teg ci daal di waaye béréb ba nag ne nekk béréb boo xam ne day tooy toujours mbokk yi lii de boo ko defee kooku man di def incha allahu rabbi ak cofeel dina ci seen diggante di leen wax nag képp koo xam ne da koy def topp sa na la laa dal benn mën na laa dikk ak gàtt fan mën na laa dikk ak ñàkk maanaam nga jekk-jekk di yaakaar muy tas sa jëf yi nga jàpp na dañ laa liggéey fekk na du dara da ngaa nokkula bopp rek moo tax képp koo xam ne da nga koy def na nga ko def ci aajo benn nga am koo nekkal fas yéene sëy ak moom mooy am projet de mariage waaye laa ngeen di sëy waaye jafe-jafe dafa bari nga def ko waaye lu dul yi ne la wóolu boo ko defee conséquences yi la mën dal bari na lool kon secret bi mooy bi ngeen indi loon tey di wax ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu